gaay yi alaykum nak rek CG fu la wax mais Macky Sall comme oyofal na mbir dañu bëgg a oyofal mbir mi sa nañu ko bu ñu té rek ñu wékkal angel Fall magam Mbayang Fall a ngi nii ku ne dama nga jëlal mako té moy angel Angèle Fall la grande dame la dame de fer mom fi sang ni ki doom bu baax la gor production yi nii su ma gars Europe nak ak yeneen fan fo fan si moo tax may def li gis nga tiaabi tiaabi 6 mètres la parton gi nii sama jigéen mu ngi nii. macha allah waaw. vraiment nag dañuy indi woon suukaru koor mais suukaru koor gi daal ñu dikkee moo ñu xaw a naqari dara. ah dinañ naqari waay. mooy bu ñu ñëwee daal ay mbaseere yu si toj lañ fi jëlee gis nga bu fekkee daal Macky Sall oyofal na mbir bi Macky Sall bu bu oyofalee mbir bi man daañu damay ñëw léegi dina yor bu fekkee oyofalu ko nag dama koy denc pour tabaski yàlla mu oyof. amiin bu fekkee oyofalu ko. amiin ni ma déggee muy wax nag. gars yi nag nañ jël mesures barrières yi mooy mesures yooyu mooy lan lépp lu ñuy tere ba ko mm-hmm. lu ñu ne waaw nga def ko comme kay coalition yëpp ñoo dem fekki ko pale mm-hmm. ñoom Sonko ak ñoom seen yi nga xam ne ñu doon xiiroo barke de boog Njaay bokk ak moom xeex bi mm-hmm. nañ bokk ak nañ bokk ak moom xeex bi pour xeex coronavirus mu jóge bi coronavirus amal jom <laughs> amal jom nga banu soxlawuñ la alxuraan amatul tagg amatul dara amatul ci réew mi dañoo sonn suñ patron yi sax mënatu ñoo dem ci ñoom mënatu ñoo dem dari mënatu ñoo dem fenn xanaa orange moom yi ak bari man kii mos nag mais daan na ëpp loolu sonn nañu ah kii mooy Ablaye Diop nag suñu production mu ngi nii Ablaye président Ablaye Diop a ngi mi ah xanaa ñu teg ko ci bi lii yaa ngi dexante yëpp